sant yàlla xam nga xale jigéen ñi boo ñaawee da lay bëgg soo xasewee trop trop da lay bëgg boo tilimee trop trop da lay bëgg soo amee xaalis trop trop da lay xam xam xam boo boo boo defee trop trop da bëgg parce que loolu moo leen di jaax gisoo ñu ne da moo def loolu ci xale jigéen ñi trop trop la ñu may digg moo leen moo di jaaxal daal. ñoom xale yi ñoo bëgg trop trop euh, xam kan moo ma yàpp ki ma laaj waxe Ousseyn muy yow mii Ousseyn bokkuñu ay yoon Ousseyn nit ñi la yoon wayu may nit ñi malay laa wax ay xeeru Tuuba ay dànk ay fosekra ay jonkin ay ndiir ay sondel ay lacciri ay kaa laay woy laay woy ay kaa yooyu laay yooyu ma leneen da ngay xool Ousseyn xool Pawlish si xam ne bokkuñu ngir yàlla ma laaj wax Ousseyn waaye na ko yóbbu sax neneef xam nga neneef waaw mooy ginnaaw seneef neneef ak kaa xanaa yow bërëngu Ouzin Ouzin daa mën a bëri kenn xanaa gisoo Ouzin ni mu bindoo bu ma kon senkal xam senkal loo ñuy daw mbege